الله وصلى الله على سيدنا محمد وسلم لا لم يكن قدام ولا وصفه ولا ثم ليس هو دور تزوه تم لا لم يكن بنا كدوان آخر لم يجيرو وصفه ودم إلى سمع برم لازم قنور ودور سوى أسوزم سوى كو جيتو ودوان وكان دفع يسوزو نعم لهم ما نانيك جيتو ولا سوزو رك تبو سوزوان دور الونديرو تلاتو ولا تلالو wuti ba war a leen ko fekkee ne façon nag dawru wala sal du dina am waaw borom ita ila tuli jëne di mala wala maa yu addi loo maa la yeesu lépp li waral nag dawru tëral tuuti xam ne amul dawru mooy ngay dem ba mu yàgg ne nga desaat bi nga bokkoon waaw loolu mën na nekk tëral tuuti nag mooy nga day wax ne du am benn xanaa wax ba sonn rek boo léegi nga tàmbalee da wax rek du am loolu mën wax ma ayam ayam bu mayam wala da ngay dem ba yàgg nga desaat ci moom waaw ni kii ko sos kële kële ko sos kële kële ko sos kooku yàlla ko sos loolu xam nga mën da nekk kon da ngaa nangu de ne moom dafa am rek sosuwut naka ko misaalee ci misaal te nga dem nga bëgg a xam baa ñu ne nag jàng baa nag bi diw moo ko nga dem ci diw ne ko man dina ma ne ah mbaa ne ko xam foog nga xam hajim de mm. nga ne nga dem si koy jàngal hajim mm. mais hajim nag mm. ko xam hadam delo rek la ko ñu mën a jàngal nga dem hadam delo mais waa de maa koy jàngale waaye nag foog nga xam baa nag njëkk dana ko jum kii jàngale baa moom mën na jàngal baa koo xamul jiim kooku mën na jàngal eh, ko jàngal koo <laughs> Mm, kon du dikk waddaw ruhoo bandi salaasi wurta bi ke bin bi jin ba jin bi hin ba hin bi bi waaw koo xam ne kii ni baa lay jàngale te mën ko jàngale ci luutu jiim koo koy ko jàngale ci luutu ko jàngale ci luutu baa xam nga baa du dikk de kon nga xam ne loolu mën na nekk ma tax ma la la yokku ba ñàkk doon alxidam jiitu bos boo demee la sama borom la si ma kon war ba doo soo sotum te bu sotoo woon nag dawul wandiiru talatuna bala callou mm. hottidama warale ko laam mm. mm. kane fanna wallan tabal xidam lama aslil xalqahu do suwan hatam laam kane jàppale woon alfana jiya lantaba ko ndaako al xidama jiitu lama asla ba yema woon al bindeewi ena dama kon war hudu so soto ndax bindeewi dañoo soto law yajiba suqnaa law btaxaar law lam yakun bi waaye di lama xadara mm. law yajib bu waru doon mm. wasbil xalaa melaw mm. dawlu loolu ñaar sama borom mooy ak xanaa bi nafsi bu waru doon lazima kon ma wasbil xanaa ibtaxar kon ma haajo law lam yajib bu waru doon wasbil xalaa melaw dawlu loolu ñaar sama borom ibtaxar kon ma haajo law lam yakun bu mu nekk doon sama borom bi waaye di kenn lama xadara kon du man لازم يكون هيا مريدا حالما وقادرا ما رأيت عالما لازم يكون mu nekk soxoram haya nda aji dund muridan nda aji soob xaalima nda aji xam waqaadiran nda aji man yéen yi bu amu doon lama ra'ayta ko doo gis xaalama mi def yéen yi bu amu doon doo gis mel mi def suma ba ñëw du dund amul coobare amul xam-xam amul kàttan kon doo gis mi def gannaaw gis nga mi def rek nga ne kàttan moom moom xam nga kàttan itam mm. ci ni nga ko mën a jàppee mm. balaa def fokk coobare ko jiitu mm. coobare it ni nga ko mën a xamee balaa ngaa soob dara da ko koo xam balaa ngaa nekk nag da xam da soob da am kàttan da def ñi di gis te fekk ngay yi moo tax mbir yi mbokk na ci yi gën a gën a gën a tegtale ci borom ñeenti melo yi nekk gi nekk da dund ak nekk gi nekk da xam nekk gi nekk da def ci coobare ak nekk am gi mu am waaw ndax jëf ji jëf ji moom xam nga ne kàttan na ko man kàttan ni itam coobare ko jiit ndax loo man man dara xam nga fii nii ñun ñii kenn ku ñu mën naa dox fekk seng rek waaye na fekk nga am ci soxla na na soob njëkk waaye fekkee dem bi kaa na soob doo dem seng rek ah su fekkee dem bi kaa soobu la itam ba ngay toog balaa ngaa def dara xam nga fekk nga soob ko te def def moom xam na kon nga xam ne kàttan xam na coobare itam xam na xanaa balaa ngaa soob dara fa nga ko xam foo xamul dara dara dara doo fa soob dara ah kon yow de dund itam naka laay xamee ak naka laay soobee naka laay kàttanee naka laay defee ñuy gis mm. moo tax laa lay ko xayyan daa ji dund mm. muridan daa soob mm. xaalim daa xam wa xaadiran daa ji man kon dama raatoo gis xaalaman bi dee